ngeen jëf mbokk yi tàmm bàyyi xel seen télévision Touba TV waxtu xibaar wi jot na sënkam fii ci ndakaaru ci jumaay Masaalikul Jinaan niki tey ji bokk na ci li gën a fës ci ponk xibaar yi comité scientifique bi gàlloo lépp lu jëm ci saytu organisation ubbi teg Masaalikul naan jël bis bi niki tey ji tudde ko ki nga xam ne mooy soxna Mariama Bousso Maam Jaaratula di wéy juru Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul liggéey liggéey bu rëy ci lislaam ak yoonu murit daan ci ànd ak Abdoulaye Famanta ci jàngat bi nga xam ne def na ko ci soxna su sell soosle ci biir euh, xibaar yi ponki xibaar yi ni ki tey ji bokk na ci tam ki nga xam ne moom moo di Aly Ngouille di jëwriñ ji nga xam ne moom moo gàlloo lépp lu jëm ci saytu biir réew bu Sénégal ni ki noonu tam ñëw na amal ab tukkib nemmeeku ci biir jumaa ji euh, xool li nga xam ne moom moo jëm ci wàllu organisation bi jàpp li nga xam ne moom moo jëm ci wàllum kaaraange ngir aj ñu mën a am ubbite gi gën a mucc fii ci jumaa ji ci dikk ak yéen ci faram yaatal gi jërë ngeen jëf mbokk yi ginnaaw bi leen ci bàyyi ngeen xel seen télévision TV rawatina di fi taataan ay xibaar ci édition spéciale yi nga xam ne dañ leen koy euh, baaxee ngoon gu jot seen rédaction télévision ko ci ponki xibaar ci noonu daal di euh, dooree euh, comité scientifique bi nga xam ne moom moo gàlloo lépp lu jëm ci organisation ouverture jumaay Masalik yi bis bu yàlla sàkk am ngeen ni dañu koy tuddee kenn Serigne Touba Xaadim Rasul tey jii nag ñu tuddee ko way juróom wa soxna Mariama Bousso Maam Jaaratulaay aadama Mbodj jërëjëf soxna Awa Ndiaye kon ni nga ko waxee rek ci bopp xibaar yi dañu ko yaatal ci nu mu gën a yaatoo ñu njëkkee kon nag ak bésu talaata tey jile yemook ñaar fukki fan ak ñeent ci weerum septembre di bés bi nga xamante ni moom la jagleel soxna jaara jéemale ko nag ci ubbiteeg juma Masalikul na loolu leen nag ñu jàpp ne soxna jaara moom ab royuwaay la ci soxna yi ci àddina wërngal këpp loolu leen nag di ab jàngat boo xamante ni rek Abdoulaye Famanta defal nañu ko ci suuf fanweeri at ak ñett dong soxna jaara doon ab royukaay ci képp kuy jigéen ku nekk ci àddina bi moom mu ganesi ci keppaaru Mouhamadul Bousso mu nekkoon waajuram bu góor ak soxna astuwaalo mbàkke soxna jaara jàng alxuraan ci keppaaru waajuram bu jigéen looloo tax mu maîtriser ko nekkoon ku ñu mën a natable ci wàllum jàngum alxuraan ak di ko bind borom këram nekkoon maam Mor Anta Sali Mbàkke maam jaara Buso amoon ñeenti bant sëriñ maam Moor Jaara di taawam bu góor Cheikh Ahmadou Bamba mi nga xamante ni moom moo samp yoonu murit sëriñ Abibullah ak soxna Faati mi nga xamante ni moom dong lañu amoon ci jigéen kii di Cheikh Ahmadou Bamba gën a leeral liggéey bu rëy bi nga xamante ni soxna Jaara def na ko fi jëmale ci wàlluma xam-xam ak diini ci kaw noonu soxna jaara nekk ab royukaay ci képp kuy jigéen ku ne ci àdduna bi ci jikko yu mu woon ba tax na tey jii di talaata ñu jagleel ko ko yemook rekk ci semaine bi nga xamante ne dañ ko jël ngir wàccaay yi ci ubbite jumaa ju mag jii di Masalikul Jinaan ndax jigéen gën a xam boppam ak palaasam ci lu soxal wàllum diine donte sax dundul lu bari waaye dundam lépp nekk ab njàngale soxna jaaratullaahi dellu ca boroomam ca Poroxaan ci atum 1865 lumière bi nga xamante ne moom la doonoon du fay ba mukk ci àddina ba tax na ubbite masalikul jinaan bi ñu jàpp ci ñaar fukki fan ak juróom-ñaar képp kuy jigéen war nga sentir fier ndax ndam li nga xamante ne indi na ko fi jërëjëf Abdoulaye Famanta ci leeral yu am solo yooyu nga xam ne nii def nga ko ci dunduk soxna jaara dikkaat ci euh, taarix ci mbir moom la sax ci la ñuy daal di desandi euh, ci bi nga xam ne nii tey jii moom la ñu tuddee soxna Mariama Bousso Maam Jaaratullah fii ci jumaay Masalikul Jinaan ni nga xam ne nag noonu la daayira yi ñëwee tey ji yéeme na lool fenn fu nekk daayira bàyyi na fa euh, ci biir réew bu senegal ak ci bitim réew ñoom ñëpp di ay daayira yi soxna Mariama Bousso Maam Jaaratullah kenn ku nekk nag boo ñëwee di nga ëndaale sa yéene ak sa jëf waaye tam saw ñàkk ngir def ko ci li nga xam ne ni moom moo di euh, jumaa ju euh, sell jilee ñenn ci ñoom nag indi nañu ay ndox ñi nga xam ne itam indi ko euh, togg ay bernde ñenn itam indi sax ba ci ay pàgguteef yoo xam ne nii jëm na ci lu jëm ci wàllu mukket ba ci ay dàll yu ñuy sol indi nañ ko di ay addiya yoo xam ne nii jébbale nañ ko tey jii fi ci jumaay Masaalikul Jinaan ñu teewlu ci kenn ci ñi nga xam ne ñoom ñooy jëwriñi daayira yooyu lee di soxna màgget seen ci micro Adama Mbodj fegoo woon nag Ibrahima Faye waaw ñun suñu teewaay ci bërëb bi mooy fas yéenee laxasaayu ngir ubbite jumaay Serigne Touba ji mu ñu defal ci taraanga ci Sénégal rawatina dakaaru mu fay ñetti guddi Dakaroom yaa lu murit mës a dégg ci sëñ Bamba mu naqari la tey ji sa xol sedd na ko ndax tartar bu metti buñ ko teg te lépp mu jaayante ko suñu borom ngir suñu noflaay loolu mooy suñu teewaay ñun ñëpp. ñun de bi ñuy ñëwee eh, indaale nan ay xeewal téeméeri siwo yoo xamante ne fees naag bernde ci lu nit mën a jëfandikoo yëg sant Serigne Touba ci ay beñe dugub ak mboq ak koko ak yu neex yoo xamante ne doom aadama bu ko ñam xam ne lii fas yéene nañu liggéey sëriñ Touba. indi nañu euh, juróom fukki euh, sachet ndox ci société yoo xamante ne nii si sunu biir la ci famille seeneen indi nañu ay satala ngir nit bala moo jaamu yàlla day sell loolu jëwrin euh, Euh, euh, jëwri na moo ko indi kon yàlla def na ñii fi toog ñëpp dajale na ay koppar ngir dem ziyaara ji euh, sëñ bi ngir jàpp ci liggéey bi ngir ubbite jumaa ji ñu ngi fàggu tam ay basan di fàggu yoo xamante ne nii bërëb bi dina ko soxla ak i muket danoo nar fas yéene laxasaayu ngir mën a liggéeyal Serigne Touba. daayira soxna jaaratulaa yi seeneen dafa bëri ay commerçante yoo xamante ne danoo laxasaayu ngir liggéey dafa bëri ay ñoo xam ne ay chef d'entreprise lañu am ñoo xamante ne danoo yore seen liggéey di joxe addiya ngir bésub Serigne Touba bu ne ñu won ci suñu bopp liggéey bi nag la ñuy faram fàccee ndaxte bu fekkente ne Serigne Touba yàlla dafa ne gëm ma liggéeyal muy ñaari ponk ci jullit kon jullit bu ne war na koy mën a wax ci saa su ne buñ koy interview jullit bi dafa war a liggéey nañ leen jóg liggéey ngir mën a joxe addiya Sëñ Bamba ji Serigne Touba kenn mënu koo fekk ci lenn te liggéey rek du la ko may awa ah soxna Awa Ndiaye loolu doon na li nga xamante nii am na solo ñëpp di jàpp ci bés bi lay rek ndax lépp mën a yemb su euh, ñaar fukki fan ak juróom-ñaar jotee ci weerum septembre bi nga xamante ni ci la ñu war a ubbee jumaak Masalikul Jinaan bi ki nga xamante ni moo yor euh, wàllum kaaraange bi ci biir réew mi di Aly Ngouille Ndiaye tey xëyoon na fi nga xamante ni rek moo di ci jumaa juma Massalikul naan bi àndoon ak ñi nga xamante ni rek ñoo di ay service am doon tase nag ak comité d'organisation bi nga xamante ni ñoom ñoo yor wàllum ubbiteeg jumaa ji ngir nag jël ay motuwaay ci lépp li nga xamante ni rek moom moo ci war loolu leen nag moo ngi nekkoon ci teewaayu Mouhamadou Mbakiyu Faye waaye itam ci teewaayu ñi nga xamante ni ñoo di suñuy reporter yi di Njaga Bey ak Pape Cheikh Bey reportage comité d'organisation bu mosquée Massalikul naan ak kii di ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye ñoom nag tey jii daal di woon nañuy amal ab réunion demale ko ci li nga xamante nii mooy wàccaay ubbite lii di mosquée Massalikul naan ñi nga xamante nii ñoo yor wàllum kaaraange gi ak ñu yor li nga xamante ni nii mooy ndox mi ak yeneen i agent ñoom nag daal di woon nañuy teewe boobu lay réunion kii di ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye di dalal xelu ñi nga xamante ni nii ñooy organisateurs yi loolu nag la ñu war a mën a def fan yi ñu Euh, seq ak aljuma ba aljuma sax ba samedi ñu mën a xool naka lañ gën a mën a organiser en tout cas lépp liñ fi prévoir comme programme donc loolu moo doon solo si ndaje mi bi ñuy laata ñuy tàmbali am na engagement yu administration jëloon donc ñu ñëw tey autour du gouverneur ak l'ensemble des service régionaux ñu xool kenn ku ci nekk fan nga toll ci engagement yi nga jëloon. moom Aliou Nguy Ndiaye xam ne ni sax lépp daal dina yemb gannaaw bi nga xamante ni dafa des ay coppite yu ñu war a amal jëmale ko ci wàllum kaaraange gi. mais am nañ yaakaar ne. Euh, engagement yëpp dinañ ko mën a respecté presque yëpp respecté nañ ko sax il reste juste quelques dispositions sécurité yoo xam ni moom dañ ko day continuer rek ba bés bi donc am nañ yaakaar ne aussi instruction yi ñu joxe police bi dinañ ko mën a mettre en œuvre pour que lépp mën a jaar ci yoon. inauguration bu mosquée Massalikul naan ñu war ko amal ñaar fukki fan ak juróom ñaax ci weeru mbar bi ci teewaayu ki nga xamante ni nii mooy xalif général des mourides di Serigne Mountakha Mbacké ak ci teewaayu ki nga xamante nii mooy njiitu réew mi. di Macky Sall. jërëjëf Ndiaga Bèye ci élément bu am solo boobu boobule ci wisit yooyu lañ ci la ñu daal di desandi ba nëgë ni mbooloo mu takku daayira yi organisation yi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di kilifay diine yi ak yu aada yi ñu ngi wëy di ñëw fii ci eh, jumaay Masaalikul naan bokk na ca ñooñee waa INACOI jàppoo ñoom nag di am eh, mbooloomu commerçant moo xam ne nii. Euh, dafa lëkkalee mbooleem ñi nga xam ne dañuy yëngatu ci wàllu yaxantu ci réew bu Sénégal ñoom itam ñëw nañ fësal seen yéene ak li nga xam ne moom moo di seen jëf ak seen contribution ci lu jëm ci ubbite ak Masaalikul Jinaan googulee loolu leen ni ki tey ji la woon ci kanamu jëwriñ El Hadji Mbacké Faye ki nga xam ne moom moo di président UNACOIS jàpp boobu la di Idrissa Thiam nag euh, yëkkati na ay kaddu euh, fësal li nga xam ne moom mooy yéene UNACOIS jàpp ci lu jëm ci ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru septembre bi lee waaye itam bi nga xam ne ni war nañu ko am en tant que talibé waaye en tant que euh, organisation boo xam ni dafa nekk ci biir réew bu Sénégal moom nag kaddoom dañ ko koo yëkkatil ñu teewlu ki nga xam ne moom moo doon wax ci turam ci micro Pape Cheikh bi feggu woon ak Abdoulaye Famanta tey daal UNACOIS moo ñëwoon UNACOIS jàppoo national ci turu Idrissa Thiam président Idi Thiam euh, feeñal ci suñu yéene euh, ci ne ñoo ko bokk ak yow ndax it yaay suñu jawrin fii moo tax bu ñu jógee comme ni ko alxuraan waxee ba atul buyoota min abwaabiha bu ngeen di dem ci barab da leen jaar ci bunt ba ñu nag bunt bi fii lañ ko gis ak Sénégal yëpp rawatina Sénégal nag rawatina këru murit maanaam kër Cheikh Ahmadou Bamba wax dëgg yàlla mu nekk bijou boo xam ne ñëpp koy faaroo loo xam ne vraiment yaakaar naa ne c'est une première ci àddina bi président nag am na lu mu àndaloon loo xam ne nee na bu ñëwee dana ko teg ci sa loxo mais symbolique rek lay doon symboliquement vraiment waaw symboliquement waaw ki mu ngoog waaw. kon euh, soxna Awa Ndiaye ñu jàpp ne rek ni ñi nga xamante ni ñoo di kilifa yi di defee noonu itam la ko taalibe yi di defee loolu sax tax ñu waajal ay bernde yu am solo jëmale ko nag ci bés bi nga xamante ni moo di ubbiteek juma Masalikul Jinaan comité d'organisation bi nag jot na nag dajale ci ñooñu le nga xamante ni rek ñooy andi loolu di xiwal ji mu doon nag ab wàllu contribution ci li nga xamante ni rek moo di ubbite juma Masalikul Jinaan bi kon euh, comme président commission boobule di président Assane Fall moo ngi doon addu di wax sax ci ni nga xamante ni noonu la ñuy jotee mbir yi ni mel tax sax mu amal ay ñaan yoo xamante ni def na ko jëmale ko nag ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo di joxe ak a ñëw di jàpp ci bés bi ngir lépp mën a antu kon euh, dañu koy déglu rek ci ki micro ki nga xamante ni moo di Ibrahima Faye. waaw fii moom chaque année moom nii lay demee rek événement bu mënti am itam maag sama jëwriñ ji ak mbokk yi ñuy àndal ñooy ànd liggéey bi waaw joxe ndox daal lu set ay boisson loolu daal mooy suñu liggéey fii moom. loolu jaam yàlla yi jox daal ñu jëlawaat ko ci jaam yàlla yi rek waaw lool daal mooy suñu liggéey waaw dina jafee xayma dina jafee xayma ndax xéwal gi ni muy ñëwee dafay naqare nat lool lool lool lool day bari bari carrément day bari trop dina bari lool ba day naqare xayma ni ni muy ñëwee itam noonu nga koy joxee parce que léeg-léeg da ngay recevoir ah 1000 paquets 1000 paquets yi boo ko boo ko recevoir ay ay ay ay quelques heures da nga koy joxe ba mu jeex parce que jamonoy tàngaay lañ nekk. loolu bu demee ba jeex tak ba dara nekkatu fi day ñëwaat ba feesaat ba mel ni dara mosu fee jóg waaw kër Sëñ Tuubaa moom mooy doxee noonu waaw loolu daal loolu daal ci la ñu nekk daal incha allah. am na ñi nga xam ne nii ñoom ñoo nekk ci dal yi ñu nekk ci kër mbakk yi ñu nekk ci hôtel yi ñooñu dañoo ak mbake mbake yee kilifa yi ñooñu dañu am liste spéciale boo xamante ne nii dafa am oto bu yore loolu oto boobu bu ñëwee bu wàccee liste bi rek bu ko joxee sama jëwrin mi sama jëwrin mooy jël liste boobu ah kiyee ko nu ñu koy waxati ñu séddale ko ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni ñu ko war a séddalee daal ba dara du ci la baj incha allah sama jawrin mi itam suñu jawrin mooy Seyer Ndiaye Seyer Ndiaye moom moo koy jox ndigal bu ko joxee ndigal rek ñu wéyal ndigal li dèjà nii nii nu fi nekk nii sax ci ndigalam lañ nekk mais moom dafa nekk ci beneen liggéey ci ginnaaw waaw ndax dafa am camion bu fi ñëw léegi te li mu yor ci ndox bari te fi ñu ko war a wàccee rek fépp fees na ak ndox léegi ñu koy mu koy xëccal courant pour camion bu mën a xaar loolu moo tax sax fekk leen ko fi nekkoon moom ngeen fiy fekk léeg-léeg xam nga murit danoo xër ay dali carax sax indi nañ ko fi waaw mbiskit tàndarma lépp loo xalaat ne nit dina ko xéewloo murit yi dañ koy indi fii waaw saakoo ceeb yaa ngi firndale ci am na ñoo xam ne dañuy toog seeni ceeb ba mu ñor sax ñu indi murit moom lépp lu nit di soxla rek dañu koy indi waaw lépp loo xalaat ne duñ ko indi fii daal murit dañ ko fi indi jërëjëf sëriñ Assane Fall mu mel ne ni mu ko waxee noonu rek joxe bi dafa jiitu laaj bi ci xéewal yi nga xam ne nii taalibe yi ñu ngi koy indi fii ci jumaay Masaalikul Jinaan ànd ceeg Pastef akuk xër niki noonu tam ci la ñuy daal di tàbbee ci kilifay politique yi nga xamante ne nii ñu ngi ñëw fii ci Masaalikul Jinaan niki tey ji bokk na ca ñooñee soxna Soham Wardini mi nga xam ne moom moo jiite mairie Ndakaaru moom itam ma nga yëkkati ay kàddu rek di jumaa ji daal yeex nañu koo def ci Ndakaaru waaye tam muy wax place bu am importance bi nga xam ne nii euh, murit yi am nañu ko ci réew bu Sénégal waaye itam jëf ju mag ji nga xam ne nii def na ko ci lislaam ak yoonu murit waaye itam indi na itam li nga xam ne moom mooy jëfi mairie bu ndakaaru ci li nga xam ne moom moo di jëm ci wàllum ceeb ndox ak dëwlin ak enveloppe boo xam ne ni jébbal nañ ko élage yi yu fay ngir xam nañ ne ville bu ndakaaru moom moo daloo li nga xam ne moom moo di gan ñi kon bu mbir mu ni mel amee war nañ cee dugal seen loxo bu baax a baax waaye itam mu yëkkati ay kàddu yu ñaax jëmale ci mbooleem ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkkee ci biir ndakaaru ngir ñu mën a yaatal gan ñi ba li nga xam ne moom moo di bisub àjjuma ji ñu ma daal di mën a amal ubbite gi caanam ba mu gën a muccee ayib ñu déglu soxaam micro El Hadji Adama Mbodj euh, feggoo woon ak Ousmane Mar. ville de Dakar yëpp conseil municipal bi ñoo ànd pour ñëw indi participation ville de Dakar ci événement bu rëy bii lii ñu am nag Dakar moo ko am lu mel nii war nga def lu rëy rëy dañu ñëwoon rek doon barkeelu si indiwaale suñu contribution moom laa bëgg woon léegi jëwriñ bi fi nekk comme que Mbacke wu nekk fi ñu jéem a dem kër xalif bi ziar ko bu mu nee nekk suñu mënee dellu si waat itam ñu dellu si ndax nag ñun ñoo yore gan yi. xayma indi nañ 5 tonnes ceeb indi nañ 30 euh, bidons d'huile indi nañ une tonne soble indi nañ 10 000 litres ndox 10 000 bouteilles d'eau ah te 10 000 bouteilles yooyu bu bës ba am na yeneen 20 000 yoo xam ne daayira ville de Dakar bi moo koy distribuer. ah juma bi moom bi ma fi njëkkee dam defe naa ne ah, jawriñ mbàkk yi daf ma ne déet bul waxati dama ne lii de amul sax màkk kon lii ñu am tey ah, Serigne Touba moo ñu ko defal passage am bi mu jaar Dakar moo tax yàlla suñu borom récompensé ko lii la plus grande mosquée de l'Afrique de l'Ouest lii fierté la pour tous les Dakarois fii. Serigne Touba moo ñu ko indi fii la nekk di ko toppatoo di ko aar daf ko loo xam ne endroit boo xam ne du mel nenn ci Dakar ndax liñ fii daf amul lenn lu ko niroo ci biir dakaar kon ñun mbégte bi ñu àndal moo tax ñu ñëwoon ñun ñëpp nag famille yëpp wër nii ñu ñëwoon vraiment doon ñëw siyaare si visiter tuuti mosquée bi joxe suñ contribution ziar sëriñ bi yàlla nañ yeggaleeg jàmm may oo nag dakaar waay yëpp da ngeen am ay gan na ngeen génn ngeen ganale nit ñi ngeen dugal leen ci ne yéen ngeen génn ci biti ndax ku am gan dang koy teral te ci àddina bi yëpp la ñuy jógee bu leen fàtte ne c'est la plus grande mosquée de l'Afrique de l'Ouest kon waa Dakar am ngeen gan nañ teral suñuy gan teral xalif bi gis ngeen démb nañu ñu recevoir xalif bi noonu lañu ñu war a continuer nag ba ba inauguration mosquée bi nañu góorgóorlu ñun ñëpp continuer ci set bi gis ngeen avenue bi ni mu setee lii xam nga ne mosquée bi rek moo ñu may bii chance yàlla na law ci biir Dakar yëpp ba nga xam ne foo tourné ci Dakar dana fekk jumaa ji Masaalikul naan moo leen wàllu ñoom yeneen quartier Dakar. kon uh, soxna Awa Ndiaye mën nañu wax ni daal lépp yemb na ngir bés bi jàll ci jàmm salaam uh, gannaaw ni nga xamante ni rek noonu la ko kilifa yi defee ci wàllum kaaraange ci wàllum cat gi. noonu lañ koy defee itam ci wàllum xiwal yi kon mën nañ wax ne xiwal manqué wul fii <laughs> jamono ji képp koo xam ne sant nga Diop mën nga daal di ñëw ndax lépp loo xam ne nii war naa jëm ci wàllum xiwal moom jamono ji yemb na ba ëpp mën nañ ne euh, fii ci Masaalikul naan waaye contribution yi yemul foofu rek ndaxte maire bu euh, bi nga xamante ni rek moo nekk ca Jurbel ñëwoon na fi tey àndoon nag délégation bu takku ngir nag jàpp ci bés bi nga xamante ni moo di ubbiteeg juma Masalikul Jinaan ñu ànd ceeg Malick Fall ci micro ki nga xamante ni rek moo di Pape Cheikh Beya. waaw bëgg rek ak santaat yàlla bu baax ak santaat sëñ Touba ci lim ma defal ndax gënuma ci samay ma gënuma ñu ma bokkal gënuma kenn tanuma ci kenn santaat sëñ Touba rek xam ne loolu sëñ Touba rek moo ko mën def seen jëm yi te di leen xam ne tamit lépp lu ñu bëgg doon ut maire bi ma doon ak député bépp lenn moo ci ëpp solo mooy taalibe gi rek taalibe nga xam ne sëñ bi def nañu ko te ñu nekk taalibe loolu laa yëg sama rayam tey di kontaan trop te xam ne tey jii lépp mu ngi ci taalibe yoo nekkee nekkub taal dara jomb la kon tey sëñ Touba rek la te lépp fekk di sant nag Alaaji Màkki Fay parce que lii tey jii bañ ko ko dénkee teg ko ci loxoom tey jii mu ko di ko inauguré kon tey bu amee lii tamit am mbokku taalibe def ko kon alaaji Mbacke Faye lu mu def defal na ko ñun ñëpp mu nekkoon euh, Malick Fall di maire bu Njaareem euh, ci loolu ci la ñu daal di tàbbee itam ci kilifa yi nga xam ne nii ñëwoon nañu tey jii ci kanamu jëriñ El mbakk yu fay bokk na ca ñooñee euh, banque bi nga xam ne daanaka lu ëpp ci koppar yi ñu doon liggéeyee jumaay Masaalikul Jinaan foofee la ñu ko doon denc muy banque islamique njiit la tey jii moom moo ñëwoon tey ndokkeel si waaye itam xool li nga xam ne moom moo jëm ci liggéeyu Masaalikul Jinaan euh, di wax ne daal ñoom ay partenaire lañ yoo xam ne daanaka mën nañ ñi ba liggéey bi tàmbalee ba nëga nii ñu ngi ciy dugal seen loxo waaye itam euh, di fësal pasté fub jëwriñ mbàkk yu fay ak ni mu leen doon gëtane euh, ci nañuy saytoo koppar ak nañu koy dugalee ak di gaaw di fay li nga xam ne moo di payoor ya saay bu weer dayee loolu le nag di yoo xam ne nii moom El Hadji Mbodj yëkkati na ko di directeur banque islamique ci kanamu jëwriñ El Hadji mbàkk yu fay ñu teewlu ko ci micro mansour badj ci ak ki nga xam ne nii moom moo di Pape Cheikh Bey. banque islamique rôle la lu mel ni bu taxawee mu jàpp ci jàpp ci bi mooy faciliter opération yëpp bien que sax yéen bu travaillez avec vos fonds propres personnels waaye seen i transfert les paiements des fournisseurs ay fournisseurs yoo xam ne ñi nga Chine ñi nga Syrie ñi monde banque bi war ci taxaw taxawaay bi nga xam ni mooy taxawaayam te mu nekk loo xam ne aussi lu mu kontaan la ñu ñëwoon nag di la siyaare di la ndokkale di la masawu coono xam li nga ci daj nag li nga daj ci yëf yi ñun xam nañ ko bu baax a baax yenn saa yi nga ñëw 18 heures ni ñu virement bi bu mu fi fanaan il faut mu dem parce que il faut gérer le décalage horaire fournisseur bi il faut mu jot xaalisam. yenn saa yi nga ñëw ni duma fi bouger te jox leen ma sama Swift lépp rek mooy wane sa pas-pas ak sa taxawaay bi nga taxaw ci liggéeyu Sëriñ Tuubaa yi ba yàlla indi ko fii ma ko indi ba ñu war ko daloo ñu la ciy remercier ak suñu doole nag taxu ko mooy kii comme je dirais daal suñu participation am na ay jëfandikukaay yu mel na ay ndox ak ay yooyu yoo xam ni banque islamique moo ñëw jox la ko pour nga teg ko ci loxo kilifa gi. wax ji daal du gudd waaye daal loolu laa amoon lu ma ciy wax merci. naam sax li nga xamante ni moo di motuwaay yëpp jël nañu ko ngir nag assurer li nga xamante ni rek moo di wàllum kaaraange a wàllum cet gi ci euh, fi nga xamante ni moo di juma Masaalikul Jinaan waaye loolu rek dayul ñoo ngi yokk ba léegi di def euh, li nga xamante ni rek moo di jéego yi ndaxte lii di juma Masaalikul Jinaan bi tëj nañu ko ba fii ba aljuma ñu door ko ubbi loolu yëpp nag li ko waral mooy wàllum kaaraange ak wàllum cet gi ñu mën koo motal fi nga xamante ni rek moo di juma Masalikul Jinaan loolu leen nag ñi ko xamle moo di ñi yor wàllum organisation bi ñu ànd ci nag ak leeral yi ak ki nga xamante ni rek moo di soxna Awa Ndiaye jamono ji xew-xew bi réew bu Sénégal ak bitim réew ci Afrique sowu jant di waxtaane moom mooy ubbiteg jumaay Masalikul Jinaan jumaa ji nag murit yi def ci seen aw ñàq waaye tam def ci Pastef mën taxaw tey jii bokk ci jumaa yi gën a mag ci dendub Afrique bile Serigne Mountakha Bassirou Mbacké xalifa général des Mourides ñëw ñaar fukki fan ak ñaar ci weerub sàttumbar bi ñu nekk jóge ba Touba ngir ñëw def ay fan ak taalibe yi nga xam ne ñoom ñoo nekkee ci Ndakaaru waaye tam ngir ubbi jumaa ji ajuma ji ñu dëgmal boobaak nëg ñi nag ba ñu annoncé li nga xam ne moom moo di ouverture jumaa ji mbooloo mu takkoo takku la ñuy nemmeeku ñu bàyyi ko ci gox yu fasantikoo ci biir réew bu ñëw ngir di amal seen ay visite waaye itam di amal seen ay ziar ngir dégg gi ñuy dégg jumaa ji ak yéeme gi nga xam ne ni yéeme na ko lool li nga xam ne moom mooy xibaar bu yees bi moo di ne jumaa ji jamono ji dañu koo tëj jamono ji nag ñi nga xam ne ñoom taalibé bu ñu ñëwee duñu mën a dugg ci biir jumaa ji xanaa rek bokk ci programme ak conférence yi nga xam ne dañu koy amal esplanade bi nga xam ne nii moom mooy esplanade bu jumaa ji jamono ji nag kilifa yi di fësal ne mbir mu ni mel dañu koo def ngir indi ak cet ak cellange waaye itam organisation ci biir jumaa ji ba bu ajjuma lépp lépp li nga xam ne nii waajal nañ ko fi mu mën a yemb ba kilifa yi bu ñu ñëwee ñu mën a julli julli gu mucc ayib ci kanamu xali général des mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké jërë ngeen jëf mbokk yi ñu doon bàyyi xel fii la ñuy ndar keppee xibaar yi nga xam ne moom moo bàyyeekoo ci ubbiteeg Massalikul Jinaan fii ci ndakaaru seen télévision Touba bi di leen jagleel ngoon gu jot fii ba ajuma édition spéciale boo xam ne ni lépp lu fi jëm ci ay xibaar wala lu ruusandi ci ay visite yoo xam ne ni am na ci Massalikul Jinaan daañ leen ko baaxee ma amoon mbégte du leen ko présenté man ak sama nattangoo aadama Mbodj di leen wax na ngeen ba wéy di bàyyi xel seen télévision Touba TV programme bi day woy ci lu jëm ci ay conférence ay plateau yu amul fenn ak lépp loo xam ne jëm na ci ay reportage ak lépp loo xam ne itam jëm na ci ay visites yoo xam ne ni am na fii ci yi Jinaan kon ñu ngi leen dig dajee suba ak jàmm di leen ñaanal guddib jàmm Adama Mbodj waa kay jërëjëf kon soxna Awa ñuy jox ñi nga xamante ni rek ñoo di téléspectateur yi dig daje ci li nga xamante ni rek moo di programme yi ñuy ànd ak ñoom jaageen jëf